benn tiis bu metti uh-huh. comme sa dëkkandoo la yéen bokk benn koñ ñu gis ñu rey ko ci anam yu ñaaw ñu la doon laaj dama ci sa xalaat waaw affaire yi moom wax dëgg yàlla ñëpp la nag ñëpp la na trop bi dafa ñaaw quoi ni amee lu ñaaw la kan rafetlu wu ba léegi amee ba léegi ñëpp a koy metti lu daal ñun ñaan ñaan yàlla nag mu yem fi yàlla mu fi amati waaw ñi koy def tamit dëkk bi am na yoon yoon teg ci ñoom loxo rek bu loolu amee rek bu soobee yàlla jàmm dina am quoi waaw mais vraiment affaire bi metti na ñëpp ñëpp la metti daal. noo leen ah, metti trop metti na trop fi ni ñëpp fi ni nii fi ni nii. dañoo jooy jooy ba sonn. man fi démb laa laa ko si télé bi moo ko gis dañu ne Pikine tali bu bees laa laa xam ne fii la. affaire bi metti metti metti metti metti trop moom daal dañoo dafa metti. da mhm. dëkk bi daal fekkoon daal ku rey ñu ñëw ñu rey la. Mhm. kon di jóge fi. waaye kuréel ñu jël police yóbbu la amul ay fan ñu génne la ngay doxee sa soxla lool loolu du yoon waaw xale bu ndaw ñu ñu rey la nii nii nii si sero zéro ah jëjë bara ma nga ne ëmb ak ay doomam dafa metti daal dafa metti affaire bi daal metti si sama rakk jee nekk Europe ma damaa ko léegi di di ko ko wax ñoom ñaar ay ay xarit lañu waaye da dafa tiit waaw affaire daal ñu ñëpp la métti mais métti na trop trop trop trop man maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm na eggalee na ndawam foofu daal waaw ndax nag luy am am na ba pare. ki ke kenn mënu si dara. yal na ko yàlla xaare si àjjana yi gën a kawe yi. yàlla bu mu rëccu loolu mu doon di def def fii. waaw man daal loolu daal la laa koy ñaanal. ku ku mu daal jamono bi ku rey daal ñu rey la parce que loolu moom moom su fi amee moom rey moom dina dina day rey arrêté moom. waaw ko yàlla yërëm daal. kon yow loolu mooy sa appel. man daal moom war a waroon a rey. ku rey ñu ñu rey la waaye ñu rey la ji jël ji jëbbu la pëlis amul ay. weer wala ñaari weer ñu daal la génne ngay doxiwaat sa soxla du benn yoon waaw. parce que lii ngeen laaj mooy xew-xewu dëkk bi ray nañ ko jël alalam sëriñ bi ray na nit jël alalam lépp rek ci Pikine lay xewee mën naa ne daal déewi ni ñaaw yi fi xew yëpp bi ak yi ñuy dégg fii la amee am na sëriñu malien bu jóge ci àll ba wàllu yaan si ray fi nit ak kii tey nekk doomu. nit ku baax nangoo liggéey ñàkk tedd rek lay dundee nga jël ko ray ko di ko ba ci benn bërëb ni ko fa yemm teg daw dem sa yoon loolu mooy lan réglement bi ñu war a tëral mooy lan ku ray ñu rey la charia da koo santaane pour man képp koo xamante ne yaa ngi gis lu dul yoon danga koo war a wax dëgg kenn du ko ragal kii rey doomu aadama yi kooku amatul benn kii ci dëkk bi boo rayee boo eggee fi ñu la teg di nga añ dinga reer di nga ndékki di nga tox cigarette kooku léegi moom moom na rey rek ñu teg ko si kaso bi tëj ko benn temps bi rek génnee ko wàcc ko muy gala yaa ki mu rey ay mbokkam ñàkk te mu nekkoon ay yaakaaru famille léegi si ban monde lañ nekk ak ban dëkk lañ nekk loolu lañuy laaj règlement yooyu lañ fi tëraloon ku rey ñu rey la ñuy xëy un bon jour teggi ko loolu pour lan la ku rey dañ laa war a rey ku sàcc ñu dagg sa loxo loolu mooy yoon parce que nit ñi li ñuy am dañ koy liggéey boo xëyul gontoo yow nooy amee sooy xëy boo guddee ci àll bi sax sa xel du dal yaa ngi dégg boo defee sa sa poos doo am jàmm yaa ngi ni siiw yàkkamti egg sa kër te loo xamante ne yaa ko moom sàcc si bu ñu sàccee sax dañuy dox nànk ñiy xëy di wàcc bu ñu amee li ñu amal seen bopp bu ñu ñibbi dañuy daw est-ce que loolu yoon la reykatu nit yi dañoo am jàmm ci kaso ba moo tax ku ci génn defaat c'est la même chose. ñu gis na lu doon xew. bu ñu mhm. ay dëkk yeneen Afrique lañ ko doon dégg léegi mi xew Sénégal léegi rey bu ñaaw. Mhm. ay rey yu ñaaw a ñaaw tey jii yow ginnaaw sa position bu bu ci joxe nii lan mooy sax loo ci yan kàddu nga ci dëkk. ku rey ñu rey la man loolooy sama avis ku rey ñu rey la parce que rey dafa ñaaw mooy dernière chose nit koo xamante ne nekk yaakaaru famille nga xëy rey ko te dañ lay rey ba pare def la nu ñaaw sànni la bu doon dañ naan la indi li nga yor nga jox leen li nga yor bu ko defee yow loo ñàkk di nga ko waat parce que nit ki li ngay am yaa koy liggéey nit ki boo jëlee alalam wàcc ko bakkanam mu liggéeyewaat leneen amal ko boppam mais yow damay jël sa alal dootoo amati say mbokk dinañ la ñàkk léegi loolu la nit ñi di dund loolu de ñi di dund. ginnaaw bi ñu taataanee sa fi mu ne nii daal ñoom ñoo yor sunuy sunu bakkan fi mu ne nii. ndax yaakaar naa ñoom règlement bu ñu tëral. bu sooba yàlla Sénégal nit ñi dinañ ci ànd. tey Macky Sall bu ne woon ku rey ñu rey la. rey dafiy jeex. ma du ma la gracier reykatu nit la dañ lay rey. parce que tamit doomi jàmbur yi ngay rey tamit seen waajur yi toog fee nekkoon seen yaakaar tey ak ëllëg dafa metti metti na torop. onze heures mënatoo koo am ci mbedd mi dix minuit mënatoo koo dox ci mbedd mi liggéeykat bi xëy yaakaar li mu jox njabootam kooku day dem jaam demam la xam xamul dikkam sonn nañ ba si kanamu yàlla dañoo sonn ku ko yëg dañoo sonn ku ko yëgu dañoo sonn dañ lay fekk ci biir kër sax rey la dem sa yoon loolu du yoon nañ ñu si dimbali li ñu war a wax mooy lii tëral règlement yoo xamante ne rey dafay jeex nit ñi sonn nañ gàm bi sax da dem ba heure bu la neex doo kenn doo gis ku la dogale rey la Sénégal rek la am te reykat yi fi lañ juddoo fi lañ màggee nañ ñu dimbali nañ ñu dimbali ci rey gi yaanaa maar dañoo sonn sonn nañ. ñu lay laaj yow violence ah, ñaaw na trop moom wax dëgg fa yàlla ndax ku liggéey moom alalam nga jël ko ci moom rey ko ñaaw na moom wax dëgg fa yàlla métti na trop tamit ku doom bàyyi jabar bàyyi famille nga def ko jëf bu ñaaw ji tamit neexul de. gars yi ñu ngi koy métti lu torop état bu ci mën a jël ay tamit mu jël ko ci moo gën quoi. ci ay mesures rek bu fekkee ku rey nit ñu rey la moom comme Yaya Jammeh ni doon def Gambie tey jikoon kon dëkk bi dina changer ko mais ku rey nit dañ lay tëj après ñu bàyyi la wala ñu bàyyi ci kaso bi ngay lekk ak naan mooy loolu daal. ah nit ñi nit ñi foofu la seen tolluwaay toll léegi quoi dañoo dañoo dañuy jël sa àll rey la. te dañuy war a jël sa alal baay la noonu nga dem mais dañuy jël sa alal rey la tamit neexul de war nañ xool daal li ñuy def te xam ne fii dëkk jullit la mooy lool dëkku jaamu yàlla la am na yoo xam ne xaju fi rey gi daal war nañ koo bàyyi. yow solution waaw solution bi daal mooy ñu jël ci ay mesures yokk policiers bu fekkee loolu moo tax ñuy rey nit ñi tamit ñu wax nit ñu wax nit ñoom lan moo tax ñuy rey nit ñi ndax alal la wala soxor la wala lan la. jaale ca nakar bi ñu bokk. yaa amiin yal na ko yàlla nangu ñaan. amiin amiin dañ lay laaj ba bi nakar ci sa kaw la la metti mhm. metti ndax xale bi yaayam dama koo xam bu baax ñu yàgg ci pikin gi waaye bi ma ko yégee metti na ma torop sama doom jee di dem moo ma ne ndongo géey ma ko nga lan mu ne waaw metti na surtout tey bi ma déggee waa ji expliqué na da jigéenam la moo gaare taxi gis affaire bi di jooy mu téy ko ci loxo di waxtaan ak moom metti na ki def lii nag yal na ko yàlla weer yal na ko yàlla weer ba ñu gis leen ñoom ñëpp ci daraja yonent bi metti na te te bii gese ñu ay nit ci nañ ko def ba tey mooy sama kàddu. Mhm. benn rafetu ci. dara rafetu ci ndax ku fekk mag mbaa nga fekk jànq mbaa xale bu ndaw nga rey ko di ko daggate defoo lu baax defoo lu baax ki ñi koy def ñëpp rek yal na leen yàlla weer te ñu teg leen nag ci yoon mhm. nañ leen teg ci yoon bu baax waaw. léegi boo amoon appel booy lancé ak sa dernier mot man de li may wax rek xale yi moo leen ba bu leen doxi guddi boo leen amee seen soxla sax toog leen tey jii loolu laa doon yedde samay doom bàyyi leen dox guddi toog ci kër gi ndax kay bëgg a def caay-caay bu la ko bëggee naralee dala koy def te moom dégg naa ñu naan boo xam la doon fayeeku kon kay ka ma doon fayeeku nañ ko jàpp seet ko ba xam moo yebal ñooñu yebalu leen. waaye yal na ko yàlla weer rek ci daraja yonent bi yal na ko yàlla weer ba mu gis ko te ko sant caam ko sant caam boo demee sax ci mbokk am na lu mu bokk ak moom te ko waaw ñun ñi ñëpp caam la ñu sant waaye day rafetul dara rafetu ci ñëpp a jooyal ñoom Soda Kase ñëpp leen jooyal wax dëgg yàlla ak Thioro Gueye sama doom jooju ñëpp leen jooyal wax dëgg yàlla metti na nag. metti na torop. li ngeen bi ngeen waaw metti rek daf ñoo metti trop wax dëgg yàlla parce que sa waay moom sama waay la woon quoi peut-être que yoon nañ nag mais xam naa ko bu baax. waaw xam naa ko bu baax ñoo dëkkandoo fii quoi Pikine. bokk tali bu bees quoi. parce que biñ yëgee nouvelle bi metti trop trop sax. waaw parce moom kenn xamul lan la quoi. waaw boo xamee nit moom mu jege la xam nga. waaw yàlla jël ko si benn si anam boo xam ne dafa xaw a métti day waaw day doy war daal. nga xam ndongo mu jege la mën nga ñoo xam ndongo ban nit la woon. waaw ku baax la woon nag yaru quoi. parce que wax naa ko booy ma ne leen man ça fait presque ay dix ans gisuma ko parce que dañu fowandoo quoi. fowandoo nañ waaw ay at gisuma ko mais daal bi ma gisee affaire moom choqué ma trop quoi parce que image bi mooy ñaar xel. nekkoon ku yaru ku cool waaw moo tax ñu bari xamuñu ko sax quoi yaru ak boppam quoi. appel booy lancé lan nga ñuy ah man de fu mu nii moom man Sénégal laa xamatul fu mu nii Sénégal moom bu fekkee bëgg nga dégg dégg ndaw si man moom xamatuma Sénégal sa quoi parce que ñun ñëpp suñu bakkan ah, que lii kenn xamul lan la léegi rey bi dafa bëri te léegi nit ñi dëgg la nag yàlla moo yor moom moom moom mooy def lu ko neex waaw moom moom moom bakkan moo koy jël heure bu ko neex ak nu mu ko neexee mais tamit léegi nit ñi il faut ñu man daal xamatuma lan la quoi léegi rey gi dafa bari trop trop sax waaw te ñi dañu sadik léegi dañu sadik waaw dañuy sadik dañuy jàpp ni rey ko noonu xam nga kenn xamul lan la quoi waaw loolu doy na waar trop sax waaw. léegi rey gi bëri na bu dul fii di feneen anam yi ñaaw ñu ñu ah, ku rey ñu rey la. Mhm. ku ñu rey la moom tant que loi boobu appliqué ko ñu ko fii rey du wàññeeku lii moom ni ñu si dégg rek du doy quoi mais daal tant que nguur gi jëlul ay disposition xam nga. à part deux heures du coup rey dañ lay rey nit ñi duñu bàyyi rey parce que dañ lay da ngay da ngay rey dem tëdd benn 15 ans nekkaat sa bopp loolu dafa yomb quoi franchement waaw nañ def ku rey ñu rey rek léegi ñu bàyyi rey. Euh, métti na trop nag wax dëgg yàlla man démb laa fi ñëw yëg lii xew-xew bi xam nga métti ma trop mais dama seetlu nag lii dafa bëri si dëkk bi dafa seetlu bëri na trop si dëkk bi da ngay rey xam nga ñu nga rey ñooñu perte yaa may dégg nga xëy ñu tëj la. tëj la benn temps bi tëj la nga dox say soxla ñi nga rey seen seen i mbokk yaa may dégg ñu ñu ñu yàq comprendre te xamoo ñooñu lan lay lan lay jëriñ seen mbokk daal man boog su ma sañoon boog man man dëkk bi bëri na ay rey yoo xam ne kenn dañ lay woo nga ñëw ñu rey la laxas si mbuus sànni la seen waa kër perte bu di la seet mu gisuñu la xam nga toog benn quelque temps gis la ñu laxas si mbuus pare ñu tëj la benn quelque temps bàyyi la nga dem man su sañoon man man man boog man man man fu ma sañoon man Sénégal fii ni peine bii peine bi ñuy teg mooy nga rey ñu rey la booba peine boobu bu ñu ko tegee moom wax dëgg yàlla rey dina wàññeeku man sama man boog sama gis-gis boobu ndax lii nii nii dafa ñaaw fu ne nii ku ñu rey ñàkk na ay jabootam ñàkk nañ ay mbokkam ñàkk nañ dafa metti ku bi moom daal di yow yaa may dégg dafa metti barke alxuraan man boog su ma sañoon peine boobu lañ fi tëddal ku rey ñu rey la boobaa yàlla xam na ne dootoo dégg kaaw ay kaawu kirim rey dootoo ko déggati man loolu sama xalaat